Ah, merci beaucoup donc cher Je euh, remercier cette invitation Je invité euh, Mohamed Moustapha Akan, mhm. président du mouvement jeunesse action républicaine mhm. mm. donc mu mel euh, Moustapha créé un mouvement est-ce que vous avez tout tuuti rek ci création mouvement Madame maanaam la Nous ko waral ah, créé un mouvement Nous nga le mouvement Jeunesse Action Républicaine Nous sommes le mouvement qui a été créé depuis le 27 janvier 2013 à la maison de l'île Nous avons créé le mouvement Jeunesse Action Républicaine euh, li nous avons créé ce mouvement uh-huh. euh, c'était de soutenir euh, la vision du président Macky Sall uh-huh. donc nous avons créé le mouvement tamit a

waaw 2013 xam nga bi ñu euh, suñu assemblée constitutive bu mouvement def suñu comité directeur bu mouvement jeunesse action républicaine ba léegi yaakaar naa comme moi, comme ni ma la ko waxee léegi mooy activité yi lu fi mën ci am ci activité que ça soit politique ou économique nga xam président bi dafay ñëw pour ay visites économiques mhm. wala pour des visites politiques tamit yëpp ñun def nañu suñu bu dee politique def nañu suñu ay mobilisation defar nañu suñu ay pancarte nañu suñu ay pour mobiliser les jeunes pour accueillir le président Macky Sall. ok côté réalisation. côté réalisation tamit liñ ci def xam nga il faisait partie aussi de notre objectif d'initier des projets utilitaires pour le mouvement euh, bu bi bi créer le mouvement mhm. donc ces projets utilitaires on a orienté beaucoup de jeunes qui ont créé avec mm-hmm. donc on a des jeunes qui ont poussé à créer mm-hmm. petites entreprises mm-hmm. peut-être que nous avons ngi sur le nañ si nous sinon mené beaucoup d'activités citoyennes. Nous avons par exemple on organiser les week-ends de quartier Nous avons ne des opérations ci quartier 7 ay de des matchs de football, des tournois de football, des jeunes nous sensibilisons l'éducation des jeunes et des, filles en général. Donc, nous avons fait opération 7-7 ans. Et nous avons depuis 2013, nous avons fait la place de notre base. Mhm. Nous sommes les principaux initiateurs. Nous avons fait l'opération de notre base. Nous avons fait l'union chaque année. Mm jeunes l'association association de jeunes il bëri ñu ngi des di di mhm. donc beaucoup na tamit si suñu réalisation parce que mhm. depuis 2013 vous léegi. mais mais les points phares moi, que ni. Mhm. il fait partie tamit pendant le référendum de 2017. organiser une fi ay euh, conférences euh, sur les 15 points du référendum de quelques populations et plus particulièrement à la jeunesse. pour un oui massif donc on a organisé des conférences avec des étudiants doctorants en droit. ñu mhm. décortiquer les correspondants et les références. ok pourquoi ngeen am vision tëb tëb dañu la ngeen jàppale Macky Sall alors qu'il y avait pas pas autant de euh, candidats yi fi leaders yi fi nekkoon ngeen bàyyi lépp ñu Macky lan moo poussé ba ngeen ba des jàppale Macky ici à Saint-Louis à Mansour non xam nga ñun xam nga si suñu biir assemblée constitutive ni ñu constituer le mouvement on l'avait créé pour mettre une dynamique de massification du parti du président Macky Sall. Moins que nous, on se trouvait plus technique pour faire la massification, pour soutenir le président Macky Sall dans, dans la massification de son parti. Donc, au début, l'idée c'était ça. Moi, que nous, nous d'appeler le président Macky Sall parce que aussi avant d'être politique nous sommes des citoyens sénégalais mm-hmm. comme le président venait juste d'être élu en 2013, on, on, se voyait dans sa vision. Mhm. Donc, on, on, est, on lui union que soutenir que sur sa vision. donc donc doonul li nga xam ni li nga est-ce que comme falu na rek nañ dem ranger si waajib pour mën am dara genre est-ce que loolu taxul mu. Ah, rek parce que bu dee dafa taxaw dafa juste après élection donc. Ah, mais nga peut-être peut-être man personnellement su ma la yor l'histoire man bu man particulièrement mhm. am na ay am naa réalité yu gën a tax ma appelé le président Macky Sall peut-être ça ne concerne pas le mouvement jeunesse action républicaine. Ah. donc ça m'a poussé peut-être le président Macky Sall tamit xaw ma en 2013 ou en 2012. Je ah. bien avant lui. Ah. donc je naa ban xam naa ambition la am ci réew mi donc tamit peut-être c'est la raison pour laquelle yalla def ko fi tamit ni mom mo fi nek ñun ñu nek ay jeune mhm. am ñu bëgg lu ñu bëgg nekk si moom. ngeen ngeen bañu ci ginnaaw amna solo donc bu nee mohammed Moustapha kan ñi ni Saint-Louis donc gis ni euh, euh, si ki ngeen xamni ci mom ci mom ngeen bootu di liggéey muy euh, Mansour Faye ndax bu nee Ndar mo fi nek comme leader APR nan nga gisee bilan bi nga xam ni mi ngi koy liggéey boobu léegi ci maire bi. waaw xam nga loolu tamit il faut man euh, je suis un président du de mouvement. Mm-hmm. je suis le président du mouvement Jeunesse Action Républicaine. Mm-hmm. man euh, te man c'est la vision du président que je soutiens. Mansour tamit peut-être il est le maire de la commune. Mm-hmm. par rapport à sa gestion. sur la commune. peut-être mën na am tuuti lu ma ci quand même xam nga. Euh, mooy que ni bi mu fi ci commune bi ba léegi en 2014

ak en matière de réalisation moom boo xoolee ba si biir moom mairie moom Mansour Faye moom réalisation moom mun mun ñu wax ni lii moo ko fi def parce que bu dee Promoville la euh, euh, mbir la boo xam ne ñëpp ñëpp ci bokk yem région yëpp affaire bu état moom moo ko def. waaw mais avec l'appui du maire Mansour Faye xam nga non si réalisation damay bëgg ñuy wax li nga xam ni hmm. moom moom moo ko réalisé lii gis-gisam la mais pas li nga xam dañ ko boole dañ ko boole. dañ ko boole non gis-gisam bokk na si ñu defaraat euh, place place hydrobase bi gis-gisam bokk na si tamit ñu fexe ba Emmanuel Macron parce que yaa dafa am influence politique tamit dafa am. Hmm. xam nga malgré nga nekk maire de commune parce que mooy li ma la wax gis nga mairie yi toujours dama koy faral di wax mairie yi seni ay seen ay charge mhm. seen charge yi ak par rapport leur budget seen budget attanul charge mairie donc peut-être que ni am na benn influence politique mairie yi ngay wax ak mairie bi bokul du fàttali ne kii ko yoré kii yore <laughs> la de.

intellectuellement ci walum liggéey ci lu jëm ci walum état bokk yoy dafa melni dañ ni comme ni ko gay yi amu ci xam-xam est-ce que loolu taxul mo tax li yëpp li yëpp tay ñu mën ko ñu mën ko juger xam nga rew du question que ni intellectuellement affaire du intellectuel mom moy yor mom mo mën a gérer commune parce que du intellectuel yi du ci bari politique ñu Mansour fay peut-être que ni malgré bu ni da nga considérer ni non pas man waxuma ko nak gaa ko wax. mais xawma ma ak gaa ko wax. <laughs> bu fekente ni dañu yaakaar ni. que mhm. intellectuellement il n'a pas bien géré sa commune. Non, c'est pas c'est pas vrai parce que dans la commune quand même xam nga xam nga man. man je me man je suis man man je me dis man je suis un président de mouvement. Mhm. mais je me dis toujours que ni peut-être bu may contrer mhm. je me je me dis toujours que ni je peux mieux faire que lui mais du ñew ñëw xalab li mu fi def. yëpp ni kii li mu fi def dara baaxu fi parce que fii Sénégal booy xool depuis Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ku si nekk am na loo jël yokk si li fi nekk dem bàyyi ko fi bu dee da ngay dem.

affaire defaraat route kii yooyu loolu c'est la commune qui l'a bénéficié avec l'appui de de l'ambassade du du coach je sais pas ce genre de choses là mais c'est des coopérations yoo xam ni commune bi moom moo ko dem négocier ji ñu am ko donc c'est des réalisations yi nga xam ni commune bi def na ko mais gisoon gisoon te seen association bi dafa war a dafa war a beru demal boppam bañ a topp bañ a topp maire bi. parce que parce que booy top booy top je pense da ngay topp koo xam ni ah da ngay topp koo xam ni kat bon euh, euh, am na vision.

mënuñu mënuñu xalab ni kii nekkul maire Saint-Louis ñun kay dañuy bàyyi ba élection. jotaat ñu du nga xarab moom mais liggéey bi des na trop trop trop trop. non mais kooku nekk association. non non mais non xam nga lu ñuy gis la. déjà chaque jour nga gis fi parfois gars yi nga xam ñooy bale ñooy bale di grève gars yi tout le temps ñu ngi fa di jël ay image duñ leen fay pendant des mois ah euh, euh, jeunes jeune jeune jeunes yi fi nekk yëpp ci walum emploi mooy loolu ba fi tey financement yi fiy dugg boo bokkul boo bokkul boo bokkul boo bokkul euh, APR wala soit ñenn ñi neenoon sax baru dem si siège financement mais yaakaar naa financement yi mel na ay ANPEJ ñoo fi nekk yooyu yëpp yaakaar mais ñoom ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon wut ci ci ba ñuy bëgg ba ñuy bëgg mairie bi dañ doon wax naan carrément que bu ñu faloo kat daan jàppale ndaw ñi mais j'ai pas les chiffres mais lu mu néew néew néew am na peut-être xam nga problème emploi moom mhm. kenn mënul wax ni c'est suffisant au Sénégal emploi, ça pose problème. Mais malgré les problèmes, peut-être le euh, euh, gouvernement au Sénégal a un effort qui Non, je parle de Saint-Louis. Non, Saint-Louis, on peut parler d'une manière globale parce que Saint-Louis, l'État du moment de en charge, moins que par exemple la fonction publique. Mais peut-être, l'État du moment, moi mener une politique envers les pays. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, l'État du moment, waxtaan ci ki nga xam ne yow jamono ji ba fi toogee na ci ki ak

mais la commune de Saint-Louis mairie de Saint-Louis. Mhm. xam nga ni toute la jeunesse de Saint-Louis qui mënu leen football. dugal. pas pas ñëpp ah. waaw léegi yow même les tamit xam nga nee nga am na ñuy liggéey pendant trois mois. Moi, moi mooy mooy ñuy donc ce qui veut dire que nous ils ils vont au-delà de leur de leur de leur moyens.

di toog ak ñi nga xam ne parfois damay dégg ñuy wax li ñuy wax rek laaj ñu di wax du samay wax du samay kàddu donc tey tey gars yi dañ naan nga gis ko am niveau sax du nga ko jël pour ñu jël la tey li ngay wax employé ngay wax yëpp yëpp yëpp nan waxan nan waxan nan waxante dëgg tey boo demee tey ñu nekk ne naan non ba muy door ñoo fi nekk niveau zéro bëri na fi. <laughs> waaw Cheikh xam nga. xam nga liggéey lan bu raay waxtaan bi nga dafa xam ni <laughs> question de wërsëg la xam nga ñu ngay wax tey. <laughs> non dama lay wax benn affaire xam nga. Euh. xam nga dafay il faut mu am benn affaire boo xam ni. Mhm. il faut ñu nangu ko. Mhm. xam nga nit. bu mhm. fekkente ni da ngay wut dara nga àndandoo ak ay nit. ñu jàppale la si ba nga am ko. la moindre des choses. mooy que ni ñi nga àndaloon nga nga wut bu fekkente ni yàlla dénk na la nga mën leen am foo leen teg mais la c'est la moindre des choses nga wut foo leen teg.

di ci di ci donc est-ce que gisoo ni ak euh, tamit 700 euh, quelques milliards yu ñu waxee mooy 750 milliards yu ñu wax jot na def ci mënd bi est-ce que ndar am na ci wàllam wala est-ce que ndar ba mu ci amee wàllam dañ ko dugalu ko feneen fi nga xam ne fa la ko doon dugal. waaw xam nga plan assainissement. Mhm. xam nga euh, état du Sénégal sur le bi PSE si programme boo xam ni le plan plan Sénégal émergent bi nga xam ni. Mhm. bi Macky Sall ñëwee au pouvoir. Mhm. moom la bind mettre ko en œuvre. Nous avons le plan Sénégal émergent nous avons un plan décennal le plan décennal nous avons plus de 700 et quelques milliards mhm. nous avons sur ce plan décennal là mhm. donc euh, mu commencé euh, ñu avons que si programme le programme d'urgence 2013 Le mhm. programme d'urgence 2013 bi bi y avait le directeur général Aline Diop comme directeur général ONAS donc moi, fa nekkoon. Mhm. donc si bir PSE man ni ma ko liiree si bir PSE. moy mhm. euh, L'ambition du président c'était c'était, c'était de faire du du Sénégal même de Aline même là wax c'était de faire de Saint-Louis une ville sans inondation. Mhm. et du Sénégal en extension. donc si réalisation tamit. liñ fi réaliser. moy que ni. Euh, si programme d'urgence 2013 boobu. il uh-huh. nañ fi quatre stations à pompage au niveau de saint Moi, une station à pompage de de de de station à pompage de nekk une euh, station à pompage de Diaminaar. Uh-huh. ak euh, bu Médina bu stade Mawade Wade. Uh-huh. bi nga xam ne moom couvrir zone donc c'est des réalisations que nous avons avec l'entreprise SVP et Akarna. donc.

ak bi ñu lancé le plan Orsec ba léegi. xam nga dëkk bi gisatoo fi ndox. xam nga non ndox nga gis na nga fi ndaxte xam nga xam nga xam nga liggéey moom yaa ngi koy xam ci bu dara xewee dëgg dëgg dëgg. waaw gis nga fi jamono yi fi jaar yëpp nawet amul. Mhm. mais ren ba nawet amee xam nañu carrément que liggéey bi des na gis nga gis nga gis nga monsieur le président man xam naa xam naa même jox jeunes yi ñu ñu concentré ci yow jéem a xool la fale parce que ci ki ngeen topp ci ginnaawam nii. non li nga gis nii du dem. du dem xoolal problème d' emploi suuxe na problème assainissement suuxi na euh, dëkk bi tilim na mbalit balaa may dee ñu ne ndax euh, dëkk bu set la demal goxu mbaaj demal Pikine Pikine bu tawee parfois doo mën dox ndax euh, puuj paaji ah donc li fi nekk ci ay problème dafa bëri bëri bëri parfois dama naan sax est-ce que est-ce que est-ce que colonel Kébé lu mu wax sax duñ ko mën a dëggal muy que cuune est loolu nekkul li nga xam ne tey moom la mën a jàpp ni lii kat moom moo am laajul laajul jàppoo ne kii dafa laaj ci ci ci liggéeyam non xam nga kenn mënul wax ni dafa laaj ci liggéeyam

maire bi mi lim ko li nga ci wax yaakaar naa ni li ma la wax léegi moy ramassage ordures yi ñu balé fu stilim fi mais li si des tamit c'est aux populations de les accompagner gis nañu gis nañu temps actualité yi ci ci ci wàllum of nak jamono yu jamono yu ñu euh ci ci ci ben sortie bi nga xamni jot jot jot naka def en tant que ministre en tant que en tant que un homme d'état responsable est ce que tay wonna mën taxaw ni carrément que tey suma ma pour pour pour li nga xam dama ko denc ci ay milliards ci fonds covid bi tay suma wowon duma ci ma si dem si walu milliards xam nga Covid génnaguñu si situation Covid ba léegi te bi nu si coolool li ko indi mooy ay activiste ñoom ñooy dem porter plainte Mansour ni dañu bëgg mu rendre leen compte. et ce qui est normal nag. waaw ce qui est tout à fait normal. Mm-hmm. mais tamit xam nga mbir état dafa am na muy fonctionner. Mm-hmm. xam nga mën a koo génn ci benn période. Mm-hmm. nga bëgg wax ni yow mën nga def situation il faut un rapport Mansour li mu def yëpp il faut mu defar rapport mu wane ni que ni lii ma def fii la dugg ak fii la dugg kooku du du c' pas du jour au lendemain xam nga du question que ni nit ku la neex rek da ngay jóg ni tu demande compte rend compte en plus de ça xam nga OFNAC bu ñu waxantee dëgg rek mooy que ni OFNAC xam nga OFNAC mënul woo le de la République. Euh. les institutions de la République là sont chaque annuellement auditées par l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances. Nous sommes la Cour des comptes. Nous sommes les principales nit ñi en constance d'auditer les les les les institutions de la République donc les activistes ku si comme yow ak man rek nga am idée porter des plaintes. OFNAC mënul convoquer Mansour Faye mhm. en plus de ça ce qui fait mal un peu dans cette affaire mooy que ni xam nga même lorsque Sonko uh-huh. euh, faisait sa déclaration là uh-huh. dama toog ak sama benn ma ni que Sonko il ne devrait pas venir ici jusqu'à Saint-Louis pour parler de ça. alors tax non xam nga. xanaa Sonko du du citoyen. non citoyen la. xanaa Sonko du politicien. waaw politicien la waaye. xanaa Sonko du du du du du def liggéeyam. waaye xam nga moom dafa wax ni son principal interlocuteur. Hein. c'est le président Macky Sall. gis nga nit fait qu'un ne da posture mhm. posture que tu vises au plus haut échelon de la république donc question que la femme donc. donc il y non c'est son erreur politique ah bon parce que non il xam nga bu Sonko il parle de tout et de rien. mais jamono que moo ko boot. kan moo ko boot. ah sa sa leader. kan mooy sama leader. Macky Sall non Macky Sall mooy sama leader. non mais mais mais mais président xam nga loolu li ngay bañ li ngay bañ dégg xaw ma na nga koy bañ dégg xaw mais même bu dee Macky Sall mooy sa leader tamit bu nee Saint-Louis moom moo fi nekk donc donc yaa ngi koy wax léegi-léegi moom moo ko boot Mansour moo ko boot yaa ko souligné yaa ko souligné parce que déjà sortie bi mu def ci affaire audio tey en tant que ministre d'état nga toog fay un bon jour booy bi yëngal la yëngal bu sew xamoo lu mu teg xamoo ndax li mu teg ay plan stratégique stratégique la xamoo lan la nga xëy un bon jour ngay nooy bu waxee stratégique bu xam ci loolu boo waxee prime ma génn ma génn audio bi nga xam ne est-ce que tey nga ki nga xam ne nit ñi da nga koy soxla di wut audience ci moom muy ministre est-ce que tey war na mën a taxaw position boobu di taxaw di dévoiler ay secret yi nga xam ne. léegi kan moo enregistré audio bi Ousmane Sonko moo enregistré audio bi. ba léegi ba génne nii audio bi génne il paraît que audio bi mu def ak euh, mais audio bi wax sax taxaw génnagul ba léegi. non loolu xam nga audio bi génn naa xam nga lan mooy dafa am lu droit di wax naan la la de la de la de la de moom loolu def nag moom moo génn wax ni lii amul moom moo génnaat wax ni lii am donc loolu amul cohérence te xam nga ce que ce que est en train de faire son là ça ça non pas la jeunesse sénégalaise sincèrement xam nga lu parce que xam nga euh, dafa dafa dama daan dégg si si suñu benn maman ma euh, madame le ministre a Ndiaye mu daan wax ni moom dafa bëgg politique de jeunesse parce que politique de jeunesse amul tricherie politique de jeunesse parce que mu jeunesse jeunes yi pour ni yow la ñu àndal ça veut dire que yow la ñu

ay intoxication takal sa ay collègue de service ku nek nga touma te fenn ludul ke ni li man def ñu wax mais même même c'est def est ce que Mansour euh, rôle muy non mais quand on est en politique xam non xam même même xam nga en politique ak nga gérer li nga xamni bon. xam nga man Mansour peut être que ni man il faut se mettre à sa position xam nga mënoo toog ben ben benn sa ben jeune frère toolu fële saaga la traité la xam nga man la la wax xam nga peut-être mom il il est allé même se rebondir genna pour wax. Uh-huh. mais si la réponse c'était de sortir directement cet audio là. il ne mënoon mënoon na sa bagn répliquer waat parce que dès que nit wax la ni traité le de de tel nom. à partir de là si tu as des preuves à montrer il faut montrer que c'est que yow li ngay wax tu es c'est c'est tout à fait vrai c'est ça. ok donc donc donc nooba bu bu temps bi kii rek nga def mu fi ah. donc ñu ba léegi di fàttali ki ñoo ngi toogal euh, Mouhamadou Moustapha Mouhamadou Moustapha Kane mu président dafa mel ni élection yi di ñëw nag ñu na ñu na mettre seen côté ndax colonel Kébé rangé wu na ci ginnaaw ki nga xam ne Sonko nan nga gisee taxawaay taxate ki euh, pois boobu noonu. poids poids lu kenn lu kenn xaar mu xëy un bon jour rek ñëw. Euh, ban poids ban poids. colonel Kébé. colonel Kébé kon ah, politique colonel colonel politique la majorité l'emporte sur la il mm-hmm. n'a pas de base politique ici à

xam nga wax des activistes ñoom yi ne sont pas des politiques c' des activistes parce que moom il montré que c'est un activiste D'après après tous ses faits il s' montré que ce n'est pas un politicien c'est un activiste ñoom c' est la c' la même considération kon jàpp ni moom war na mën a war na mën a yëngal fi dara. non non non lan la fi yëngal fii.

ok coowu troisième mandat bi ku ci ku ci wax ñu xëy suba ñi la kaay toog wax ah yaa ngi saxat dafa mel ne ndox ndox ak ni <laughs> donc donc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce est dafa jot nag ñi leeral askan wi li war a am la warul warut am

donc nous avons remarque euh, sixième point est réforme le président Macky Sall euh, pour la restructuration du quinquennat pour le mandat présidentiel y compris la question la la question de l'applicabilité mm-hmm. immédiate de la réduction à cinq ans du mandat de sept ans en cours xam nga donc loolu dafa dafa wane ni président Macky Sall am na volonté bu mhm. def euh, def euh, réduire mandat mandat bi nga xam ni sax mhm. moom lañu lañu moo moo duré sept sept ans mhm. dafa ñu woon nañ ko nañ ko wàññi mu mandat wu cinq ans effectivement donc loolu ñun si justice doon ñu wax ni que malgré la volonté du président euh, le droit le droit parce que le conseil constitutionnel m'a rejeté. mais mais mais mais président exactement. waaw parce que mais dafa mel dire nga bëgg wiiri ba wax <laughs> le président Macky Sall. je hein. la si logique bi mu pour faire un mandat ou cinq ans motax ne mu non xaaral comprendre <laughs> uh-huh. soumettre conseil constitutionnel uh-huh. ngi leen dama bëgg sax mandat bi nga xamni dafa en uh-huh. réduire que de 5 ans nga ne mandat bu 5 ans le conseil constitutionnel a rejeté ce sixième point des réformes est-ce que programme non c'est lolu xam nga lolu wessu nañ ko <laughs> mais la wax xam nga ba revenir ligne mu wax que nul ne peut ne peut faire plus de deux mandats. Mhm. man c'est li ma dég dégg sama dégg dég mhm. ak bi may soutenir les quinze points là. Mhm. si sama dég dég. Moi, le président Macky Sall. ne fera que deux mandats. C'est le mën C'est le si C'est le a Wow. mais wow, c'est le mën C'est le si non fi la mën a yàgg fi si deux mandats. xam nga xam nga boo nee deux mandats rek déjà bu nee cinq njëkk yi ñu set la waroon nekk rek. mën ngeen ne ba si biir ñu noo deux la parce que bee bokk ci. non moo tax ma laajte préciser ndax fii la war a mën non fii la war a mën ok waaw c'est bon. xam nga waaye xam nga dafa am lu ñuy wax xam nga le tendance tendance politique. Mhm. politique dafa am tendance bu ci nekk. Mhm. mooy tendance politique comme loolu c'est pas encore effectif. Mhm. tendance politique mën na renverser wu à tout moment au l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire nga uh-huh. par rapport à la constitution. Uh-huh. la constitution uh-huh. mais si nous regarde, premier ministre Koulibaly? bi décédé on était à un mois des dépôts de candidature donc est ce que brèche yooyu euh, constitution bàyyi woon nañ ko xel ba nga xam ne dañ naan automatiquement le président sortant moom muy revenir ah. peut-être moom laa la wax que ni mooy moo tax mën la le président Macky Sall tamit a tout à fait raison. Ah. Euh, que mu am ci benn benn benn benn benn benn tey. parce que aussi mën nañ dem ba 2024 alors que la situation <laughs> sénégalais yi seen bopp gis ni kii wow duñ ko changé. waaw ah, sénégalais kay fu mu nekk nii moom amul. mais on même bu la même bu la sénégalais même bu la sénégalais sax ne ne ne déma dématal saa instant bi nii moom ah. moom la Sénégal yi demante déjà déjà déjà moom moo ni woon deux heures nan dem si deuxième tey bu ko Sénégalais yi ñëwoon carrément un bon démocrate bu ko Sénégal yi président kat dañ bëgg nga demaat nañuy déedéet am na samay rak yi fi nekk kat na leen bàyyi ñu continuer donc donc mu jeex. c'est-à-dire tamit il faut que bu ñu topp bu ñu topp milliards yeeg yi lekk yu neex yeeg yi ah kii xaas yi. waaw cher nanu nanu nanu yooyu <laughs> ah. ah. en tout cas daal constitution moom moom en tout cas mooy li ma xam. moi que nous yego nous fait mandat de gini ni en 2020 2024 ça reste ah. fin tolli buñ fekenté né dañu jël euh d'ici 2024 ñu jël bëgg activité réew mi yëpp ñu politiser ko. Ah. wala si xalaat kan moo war a remplacer président Macky Sall. bari na <laughs> dina gën a dellu gannaaw na Sonko ñëw taxaw euh, euh, comment dirais-je euh, Khalifa Sall ñëw taxaw Karim Wade ñu ñu bàyyi ko mu ñëw taxaw extra bu ko defee ñoom ñi nga xam ne ay ndaw am xam-xam moom moom bu ko defee après.

xam nga gis na li fa taay. man de gisaguma ko. ah am na ay élection yu man daal bureau bureau de vote yi ma fa dugg ma sa dugg yëpp parti bu ci nekk am na fa représentant. waay président président ñun fii lañ nekk ci commune bi peut-être mais te fii ah mais loolu fii ñun loolu lañ fi gis. yow mi xam nga ni bureau de vote bi ngay voté. Hmm. parti politique yi Saint-Louis parfois fa non, non, bi nga xam ah, <laughs> non, non, non, non, Non, non non, non, non, pas non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, di non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, léegi non, non je ne pense pas non, parti bu non, non, non, ci non, représentant membre non, non, non, non, non, non, ok non, non, may signal ñu non, ñu non, waxtu non, non, mm-hmm. donc mais benn question laa lay posé rek avant avant avant avant avant mooy est-ce que tey su euh, mouvement bi nga xam moom nga jiite mën nañu xaar ne élection mairie bi di ñëw incha allah di nga doon candidat am nekk ci langue bi yow ak ñoom Maître Abou Talib nekk ci langue bi yow ak ñoom euh, Abba Mbaye nekk ci langue bi yow ak ñoom colonel Kébé nekk ci langue bi yow ak Mansour Faye est-ce que mën nañu xaar ne carrément que Mouhamadou Moustapha Kane pare na pour poser candidature bi incha allah. Ah, an seen an seen mouvement bi.

donc politique course de fond on s'est dit que bis élection bis nous nous, nous locale Non, nous. nous assemblée générale non nous assemblée générale nous mhm. ni nous en coalition individuellement. domaine individuel bu leen def ay coalition parce que euh, réew mi ah, tamit euh, réew mi fi ndar ndar ndar jot mu changé parce que ki fi nekk nii gis ngeen ni li fi nekk dara dara bougé wu. non xam nga loolu ay loolu ay ay ay ay comment dirais-je. Euh, non lamp yeeg yi nga xam ne moom politiser fu nekk. ñun daal en tout cas. ndox yaa ngi nii ba ba léegi nii ndox yaa ngi nii am na am na si quartier yoo xam ba léegi ndox yi demul donc bëri loo xam ne da koo liggéey noonu jël dëkk bi jox ko ndaw ñi ndaw ñi liggéey ko donc le mouvement l'élection est élection yi coalition Mais la mais coalition nous avons une possibilité de regrouper jeunes jeunes yi sont saint autour du mouvement jeunesse action républicaine. parce que l'autre tamit dañuy un appel à la population à la jeunesse Saint-Louis jeune notamment que nous, ñëpp ñu taxaw le mouvement jeunesse action républicaine là. parce que nous avons des candidats jeunes à la, compétition de la mairie. Inch'Allah. donc euh, je suis lancé un appel à toute la jeunesse. Inch'Allah, allah looy tàggatoo. waaw li tagoto moi peut-être que nous di de le remercier une euh, équipe euh, Saint-Louis TV. Mhm. parce que vous êtes tous de la jeunesse saint-louisienne. Mhm. donc il y a ngeen di def nii tamit innovation la. yaakaar ni tamit. Euh, je lance un appel quand même aux autorités euh, dans la région de Saint-Louis pour que ku gens si venir en appui pour que les gens puissent def gën de parce que vous êtes tous des jeunes à soutenir donc sinon je remercie remercier toute la population saint-louisienne notamment

donc am nañ lolu ci dalal la di fàttali rek ñi nga xamni ni yéen a doon seetaan télévision bi nga xam moo saint TV tay nak ki ñu daloon comme comme comme invité moy Mohamed Moustapha Kane di assistant euh, direction course, en même temps aussi tamit jiite mouvement bi ñu naan jeunesse action républicaine muy genre donc ñu amoon mbégte nag tey gis ngeen waxtaan bi macha allah yaa ñu na loolu bëri na fi point yo xam ne jot nañ ko développé donc di gërëm aussi équipe bi nga xam ne ñoom ñoo ci jàppoon ku ci mel Nobis ñoo ngi koy siyaar bu baax euh, gaz El Salvador euh, ak ki nga xam ne moo di euh, El Hadj le retardataire <laughs> boo boko boo ko soxlaa doo ko jot waaye bu la soxlaa mu jot la di nuyu sama invité bi Djibi cham <laughs> tay ma ngi invité woon émission bi quoi <laughs> donc di leen jox dig ak dajé ci yeneen ni inshallah allah jaa jëfati